sangu jigéen ñi ci dunya jaaratullaah aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidil awalina wa sayidil axirina alladi lam yuxlaq mislahu bika lam yabdu mislahu musawa bokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ñëw nañu ci sunu yor yoru sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam Euh, ànd koog Yacine Demba ni ma ko daan defee rek tabaarakallaahu ci 18al bi ñetti w point rfm point euh, sn euh, foofu ngay yem rek da ngay dugg waaye boo tàppee sax nag rfm rek dangay ngay daal di seetaan jaga sekk tabaarakallaahu ànd koog Yacine Demba mi ñu duppee rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> waaw yow bu la neexee <laughs> waaw waaw ni yonent bi lañ ma duppee tabaarakallaahu tey nag xam ngeen ni bu ngeen déggee ñu ubbee xaadim géey boobu Eh, ci soxna jaara xam ngeen ni biig la nu fanaan poroxaan waaw waaw biig nag yàlla dimbali na ma ba teelu ma jóge fii eh, ren ren dama xam nga rek yàlla ni muy dogale lenn lu ne bu la ca yàlla boole daa ca bokk bu la ca yàlla boolewul doo ca bokk moo taxit ma daal di ñëw defee ko fii guddee naa fi lool tabaarkalla ànd kook sëñ Saaliwu Ñang eh, ca kër soxna jaara ga ak sëñ Jiili Ñang nu def fi waxtaan wu am solo ci maam jaara ak sëñ Asan Mbakke tabaarakallaahu mu waxtaan ci soxna jaara lu rëy rëy moo tax tey jii ñu xëy rek xaw ma nuñ koy waxati eh, tam xarit joo gis am na tëm ñëlit <laughs> ngoog nu nu nu nu nu ñamali bi xaw ma ñama eh, du gaa yi bu ñu defee seen soo yi ba dañ naan raxas bi fële la waaw ah, waaw mu ngoog mu <laughs> ngoog moom daal weebu rek def def ko noonu fexe ba ndax soxna jaara kenn du doyal ci moom waaw waaw kii to kii nii Yacine kii ñu kii ñu kii nga dégg ñu koy wax muy soxna jaara fanweeri at ak ñett la dund waaw 33 ans moom la dund ci at yaayam dund na 138 ans yaayam nga xam ne bi mu koy am am na 100 ans waaw yaayam muy maam asawaalam naawel euh, euh, soxna jaara 33 ans yooyu ci la liggéey li muy liggéey lépp ci àddina ci taxawaayam nga xam ni ci ndaw la liggéey ci la nelaw ci la amee xaadimu rasul ci la ñëwee kër sëñ Mor Sali liggéey fa nga xam ne liggéey biñ la wax ni la moom la soxna jaara doon liggéeyee keroog bi muy ñëw kër moo kër sëñ Mor Anta Sali la ko fas bisub keroog dañ wax ni biñ ko waralee loolu ñuy wax waral waral nañ seet ba ba di ko indi kër so kër kër sëñ Mor Anta euh, bi bi gee jotee yàlla dafa roof fas wi mu rëññeet lu daanu ndax soxna jaara bëggut a faat waxtu booba fas wi rëññeet lu bi gee jotee mu daanu ñu ne ah ab seet du daanu. mu ni leen may leen ma ma julli gee ba pare ci seet dimbali leen ma rek ma ma julli gee comme daanu am na ñu ne ko waa baax na kon nañ ko may mu julli gee ñu may ko mu julli gee yéegaatu yéegaat ca ca fas wa loolu moo ko indi kër kër wax nañ ni keroog biñ ko yéewee ba di ko ba di ko dénkaane noonu ñu daa defub seet yéeg léegi yooyu amatul Yaasin njemba dénkaane amatul <laughs> billaay amatul ah ti tiimub seet naan ko bu sab goro bu sab goro bu sab goro siisee bul tib bul yàqale <laughs> bu sa jëkkër fii dee bul xaritoo góor gu ko neexut yooyu lañ daa wax maanaam ay terme la yoo xam ne da nga koy bàyyi xel day def ci sa xel waaw bul bari xarit bul saytaane bul bari koy waxtaanal bul bari ku koy jokkanteel bul weer sa jëkkër bul xuloog sa njëkke del def yooyu lañ daa wax yooyu mag ñi dañ daan timu séet kenn kenn ñu muur ko ndeysaan mu ànd ak mu ànd ak topp mi <laughs> yaa ngi dem yow mii doo ko dee de <laughs> nee na ma topp ma ñu toog nag di ko di ko dénk waaw waaye bu xëyee ba yegg si bët set ba ca takkusaan lay jëlib dawal xam nga jëlib dawala loolu nag lay tëdde <laughs> maa man mi maa ngi bëgg a yoxoosu de maa ngi bëgg a dem de maa ngi bëgg a mag de jëlib dawal takkusaan lañ ko daa def bi bisu maanaam mën naa am semaine ba lay doon bu semaine ba dellusee ñuy ñuy jël njël njël lu jëkk waaw jël njël njël lu jëkk ci bis bi cere njànja la ñuy defar maanaam cere ji ak yàpp wata boor waaw mu ngoog <laughs> bàyyi mbay bàyyi mbay ngay reetaan waaw cere njànja la ñuy defar cere njànja tey lañu koy wool soq ko tey foof ko tey mooñ euh, ko tey tey ko cere ji lépp tey lay pare ak yàpp woo xëy tey ji lañu ñu ko rey moom la ñuy defar bu tëkku saanee nag ñu dem ca teen ba jëlib dawal jëlib dawal ñaq lu ndaw la ñuy yor dem ca teen ba ndaw jigéen ji jigéen ja topp ko ànd ak moom mu dem root bu rootee ba noppi yanu ko indi nag njaqali nit ñi topp kook taas wa taas wa du ma ko fi wax wow waaw mu ngi noonu mu ñëw nag ñu daal di wàcce wàcce wàcce wàcce njaqali moo moo borom kër gi ñu daje nag jël seen ñaari tànk yi ni ko bëxëj ci biir kii bi njaqala toj yooyu ay ay loolu mooy culture du Sénégal xanaa ma yii ñu fi naa ay culture Sénégal la ak yooyu boo ko càmbaree dara du ci culture Sénégal mbaa du woon culture bu rafet lamb mii ñuy wax rek du woon culture bu rafet lamb buñ la ko toppalee toppale du culture bu rafet ci Sénégal buur yi ñoo daan toog woo ñaari jaam ñuy xeex ba rayante xam nga loolu moom jërut sax di ko kile moo tax it daanaka gars yaa ngi koy transféré jël ko ca dóoranti dóor yi ko yi jar am yu nàcc nang parce que dafa këfindul xëy na xaalis bi ci kii léegi xaalis moom li ko ci li koy maye day rafet xaalis li koy maye lépp daa rafet <laughs> waaye war nañoo seet nag loolu nag moo daan am kere bi biñ ko waxee loolu ba ni ko tey ngay dem ba di yéew ko ba wax ak moom ci li ñuy wax ak moom moom soxna jaara dafa jooy rangoo ñoom tuuru dënnam ñu ni ko lan la fekk ubbi na aaya ba yem ci fi yàlla di wax naan beneen yonent dootul wàcc mu ni loolu moo ko metti nde bu beneen yonent doon doon wàcc moom gëm na ni moo koy moo dina liggéey ba am ko fi waaw waaye nag ñaan na yàlla am am fi asamaan ak suuf mi nga xam ne mu moom la jant nekk ak weer fekk booba maam Anta njaay la doon waxanteel ca loola du ma dugg ci histoire ba waaye gis nga jëf jëmu jëf cheikhul xadim cheikhul xadim alayhi ridwanullahi baax xadim ba pare nag yar ko ci loolu wax nañ ni soxna jaara bu mu saan di togg di araw mbaa muy togg laax mbaa muy togg eh, ak toggam dalaa ilul xayraat yi lay jàng moom la moom lay mooñee moom lay toggee moom lay def lépp ah xam nga kooku nag faaw mu demee noonu moo tax tey soxna moomu la ñuy waxtaane xam naa bala ñuy ñëw ci moom danañu am ñaari baat rek yoo xam ni nag dañ koy dañ koy wax ci réew mi nag waaw ñaari baat yoo xam ni Yacine Demba daanu ko wax ci réew mi euh, Yacine Demba réew mi réew mi doy na waar du keroog fii nee naa la nee naa la ñiy wax ci internet yi man duma leen ŋàññ site internet yi lañu war a waxal ministre de l'intérieur na jël ay responsabilités ci site internet yi comme mënut a connecté ñu si moom parce que boo yooyu moom kenn mënu leen a régler xam nga koo xam ne yow amagoo amagoo vingt cinq ans doo jàng fi alxuraan mokkal fi tarbiya fi am fi wilaya am fi baatin am fi ijaaba di ñaan mu nangu kooku duma leen te ñooñu boo leen ne nit ñi bàyyi leen ñooñu duñ leen bàyyi fi mu ne wax nañu li ñu wax lépp dara du ci dëgg boobaa tey waaye du tax boo demee seen buntu kër yi fekk fa nit ña toog ñoom ñëpp nag ñi wax ni coupe bi du ñëw ak ñi ñi wax ni coupe bi dina ñëw ñoom ñëpp a ñi wan ni coupe bi dina ñëw ak ñi tàndatu mu jàpp ay pour wax naa la ay pronostiqueur pronostiqueur lañu ñoo ngañ jaañ xam nga ngañ jaañ yenn saa yi lu mu wax ci làmb loolay am ak Bécaye Mbaye genre yooyu lañu dañuy pronostiquer dañuy déglu ngañ jaañ ba mu ni combat bi eh, diw moo ëpp moo ëpp doole. wala nangam nangam bu dee match bi ñu dem déglu ji Ablaye Diaw ba connecté li Ablaye jaw wax parce que Ablaye Diaw gis nga ko bañ match bi tàmbali fii dañ ne na ñu jël ñu jëli ñu jël waa waa Égypte moo ëpp doole gis nga ko dañ lañ waxoon rek daal di am parce que dafa yàgg ci football xam na pronostic xam na ñu ko gars yi ñoom la ñuy déglu du si ñaanuñu. léegi nag site internet yi dem ci ñoom ñoom Médoune ñoom Médoune ñii Médoune Médoune men <laughs> Médoune nag classe googu ñoo fay Médoune laa sañ a tudd di moom sax moo ci ëpp doole mooy dem dékk leen seen i micro jox benn booy mu naan ko yow yàgg nañ fee ñëw yàgg nañ laa dégg micro loo fi musa wax nangam na kooka moo kooka mooy mooy triant bi kay toog di di interroger waa jooju mooy triant bi parce que moo la jaay xam nga euh, marketing marketing defe naa ñi def marketing xam nañ loolu ki ji ki fexe ba jaay ku bëggut woon. kooko bu erreur dee am kooka la tubaab yi dañ ñoo gën a yeewu ci loolu ñoom bañu xamee ni li ñuy wax du dëgg nañ def comme tubaab yi avis pour votre santé ñu wax ni ñun bu waxee ba noppi daal li ñuy wax nag erreur la ci yéen <laughs> bu dara li ci li ci dul dëgg moo ëpp li ciy dëgg moo tax it yàlla jël ay responsabilités am ma ko tàmbalee ca jamono yi jamono ya émission ba aman ca 2S euh, bisu bisu ngóone yàlla weer fa ñëpp. tey émission boobu ministre de l'intérieur bii rek waran na cee jël jël jël ay responsabilité teel ko fem bu leen jàpp bu jàppan ñenn ña tëj leen parce que erreur la ñu def xoolal maa ngi dégg ba ci xaw ma France la xaw ma fan benn waay bu wéex muusam rek liñ ko amaan ci alal kenn xamul nu toll ngóor si jàpp jàpp ginaar gi parce que ngóor si booy booyi 2000 yi dañoo yekk seen bopp yi def ci lu woyof tooy ay dof ñu wéruñu ñu ci bare bari seen bopp yi dara newu ci dara newu ci dara dara dara wutum xaalis rek àddina bi wutum xaalis rek ka fi xew nu ko waay amee baax na loolu erreur la nañ ci nañ ko moytu xale yi nañ leen yeewaat yee leen tegaat leen ci yoon woo xamee ne dana leen mën a jariñ àddina da leen mën a jariñ àllaaxira xoolal dem nañ ba ci actuellement di bërki fan yi yaa ngi dégg ca mbuur xale bu jigéen boo xam ne dañ ko jàpp daggat ko def ko ci ay mbuus ba ñu ko seetee ab sëriñ ko def lu xaalis laaj dañ ko def de rey seen doom sax def ko ci mbuus dinañ ca yegg bu ko mi bu ko ko ma ku yor loolu waaye site internet yi nañu waxtaan ak ñoom ñu arrêté ñoom ci seen bopp ñu xool ñi ñuy jël ñoom daa mel ni amuñu lu ñu liggéey ñoom bu ñu rombee ñaari mbaam yu taxaw sax ñu daal ni interrogé ko ah, fan yii nag <laughs> nee naa leen yaay yaayu joor yi ak jabari joor yi moom sonn nañu <laughs> yaayu joor yi ak ak jabari joor yi barke yonent bi saa boo ubbee rek ci nga ngay yem man maa yaay sa ke eh, eh, kii saar kii même naan man maa yaay jéeju kii naa man mani waa yéen li lii moom waa lii léegi ban jariñ la yéen du ngeen dem seeti liggéey boo xam ne nit ñi dinañ ci mën a jàpp dugg ci marché yi xool jigéen ñi ni ñuy góorgóorloo dugg ci géej gi xool nit ñi ni ñuy góorgóorloo dugg ci àll bi xool nan la nit ñi maanaam yooyu ñu gën koo ñu gën koo jaay ñu gën koo jaay nit ñi li fi fekk rek loolu la ñuy jënd quand même te loolu yëpp dara ñoru leen ci pour ñu di leen seetaan rek la alors que maa ngi jéggulu euh, beneen bi ci des mooy ab xaalis dina mos a toj réew mi xam nga wax naa la fii keroog ne la <laughs> sëñ Abdou sëñ Abdou daana wax naa yàlla na yàlla tàppe xol yi yaasin bala laa yàlla tàppe kenn nee ko dimbali ma raxasal ma waa ji ba noppi senegal gii ñu doon xam nga doon wax na bu ñëpp àndee doon benn dañ li ñu bëgg dañ koy am laataa affaire baa jeex rek benn ko jeex na xaalis daal di ñëw rek jaxase lépp moo tax bala laa yàlla tàppe kenn ñaanal yàlla mu raxas waa ji ba noppi doog laa tàppeeg moom parce que léeg-léeg mu tàppee la xamee ni barke Rasulullah bu jógee ci sa kaw pare nga nit ñi gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi gëmuñu leen alal rek mooy mooy dox ci seen àddina wax naa la fii keroog ne la boo yoree vingt cinq mille boo bëggee rey nit boo bëggee faat nit boo yoree boo yoree quinze mille léegi nga nga nga gis koo faat kon nag tabaarkàllaaw euh, maa ngi maa ngi ma ngi noonu euh, sama xarit Mara Diop <laughs> Mara maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax di ziar procureur bu baax dama am xaritu procureur yow Yacine wallaay lazim dama am xaritu xaritu procureur bu mag <laughs> ah yooyu yoo tabaarkàlla maa ngi koy ziar bu baax a baax xam nga boo tuddee turam gars yi dañuy xam dañuy xam naan sax fiiw maa nga bàyyil noonu rek Mara maa ngi lay ziar bu baax Mara dina xam ki may wax euh, tabaarkàllaaw di ko ñaanal yàlla ndax noo bokk fu ñuy bay ñun ñëpp dañuy bay léegi ab àll lan yor sama ñaam bi ja ñor na sama ñebbe ja nag moom mar dem si fe ne ne maa ngi ci kaani gaag basante ba <laughs> yaa ngi di ziar sa yaay xam naa damay dellu ca soxna jaara rek Yacine defe naa ni koo may dugalal noonu seexu naa mbaj ñu ñu àndandoo gars yi nag ci 88 628 14 14 gars yi demul woon gars yi demul woon poroxaan tey moom nii rek la ñuy àndandoo mooy poroxaan ji la ñuy la ñuy indi waaw kii nag seexu naa mbaj la tudd ñu teewlu ko rek incha allah. ma jaata gi lay béy man jaara. ko xaw sag waayaaraar ma jàkka dëgg lay bay mam jaara soxna jaara buso ku ko xam sag waayaaraar soxna jaara buso ma jàkka dëgg lay bay mam jaara mam jaara sa jëf ju rëy ji ku ko xam sag waayaaraar na jaara busoo ay bàkk yaayoo tagg mu ab gàkk tey bàkk tey Tey bàkk tey bàkk taayoo fekkule ci waaye sa pay di kenn fekkule ci am sëriñ Basiiroo ay dogalam lu dogal mu neex la toppay ndigalam ami seex mun faxaa ay dogalam lu dogal soxla toppay ndigalam tey bàkk taayoo ma jaara as gor nga mu nga taatu yaaram nga ñàkk sikk yow moo yara waaw kay mbokk yi ma ngi noonu 88 628 14 14 ci ziyaare ñëpp Babou Seck maa ngi lay ziyaar sunu mag jooju ci ngaay yal na yàlla dolli ndamam di ziyaar góor a jiite ca ngaay di ziyaar nag mbooleem waa ngaay mexe installé nan sunu maire ba nag euh, Maguette Wade yal na yàlla dolli ko ndam di ziyaare itam Adja Fat Diop jëli deuxième adjoint ba nga xam ni moom moo fa ne di ziyaar nag koso Wade bu baax a baax ak mbooleem njaboot ga Euh, di leen ñaanal yàlla mën nañ jaar ci 88 628 14 Demba bu defee ñu siyaarante Mor Ñang Mbacke bari Pikine ginnaaw raay sud ginnaaw raay nord noonu la ko daan waxee asphal Colobane duñ la fàtte waaye Alaaji Sàmb borom montar yeeg weer yu rafet yi maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax a 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw say xii maa ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar Sane Diagne ñu ngi lay ziar. kooku kan la waay. man la Cheikh Ka. Ka maa ngi lay ziar foo yootee. maa ngi woote Kër Ndiaye. Kër Ndiaye fu mu ne. waaw Kër Ndiaye. ñu lay ziar bu baax. noo ngi lay ziar tabaarkalla macha allah. ah ñu ngi defarloo émission bi ñu ngi lay bàyyi xel bu baax a baax. alhamdulilah macha allah. waaw am na laaj kii ñaan benn son benn kii mbay doon rek. waaw mbay doon de waaw ndeysaan incha allah waaw ñu baax a baax. yàlla na yàlla dolli ndam. ziar waa Kër Ndiaye yëpp. jërëjëf bég nañu ci loolu. jërëjëf jërëjëf. waaw kay nuyu na waa Kër Ndiaye tabaarakallaaw di ziyaara sama bàyyi nag alaaji euh, baay Serigne Ahmadou Ba euh, baayu Lika ak Manaar Ibrahima ak Lalla maa ngi koy ziyaar bu baax te di ko ñaanal yàlla ku euh, zeew sama xarit sama sama sama Serigne boobu nag di alaaji Maaraaje soxna sa yàlla na yàlla delloosi ko ci jàmm ma nga ca bay ma nga ca Seydina Mouhamed Ali bëgg yonent moom daal bu gaa yi vacances yi France ak Amérique moom moom nee na ca yonent ba la jëm. Euh, madame Dieng yàlla na yàlla delloo si ko ci jàmm asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ko baax maa ngi lay ziar waay. waaw wàññil wàññil rajo bi tuuti. jërëjëf waay na nga def waay. sant yàlla tabaarkàlla. alhamdulilah kontaan nañ ci yow de. alhamdulilah. alhamdulilah naka coono yi. ah waa sant rek de. a ah, kunun ngalam ñoom ñëpp ñu ngi rafetlu xam-xam. ndeysaan. waaw loolu nga wax moom mooy dëgg xaalis ba. a ah, dina tasum réew de. ah fa la ñu jëm de. man nga ko de. Mhm. yàlla yàlla def jàmm. jërëjëf. mu ngi rafetlu si xam-xam bi de dégg nga. mu ngi sant nga ñaan ñu suñu maire bu bees bi si Sangalkam. waaw kooku ko mu. Alpha Bokar Xuma. ndeysaan yal na yàlla yokk ko. amiin nekk daal militant yëpp kontaan nañ si moom li ñu yaakaar si moom daal yàlla na ko yàlla defal daal. ah mboo fu ma deni Pape Sow fa ne. waaw mooy Pape Sow Alpha Bokar Xuma di Pape Sow ah moom su ndeysaan sama xaritu xarit la. ah sa xarit la Mouhamed Ndiaye Mouhamed Ndiaye Mouhamed Ndiaye. waaw ah. mu mu mu Serigne Cheikh. waaw waaw waaw. ndeysaan mas na ma nuyuleeg moom bu baax a baax. xam nga man njañ moom dama bokk ci moom. waa njañ Diop. <laughs> waaw dama bokk ci njañ. waa ñoom ay ay ay ay wóolare la ñoom. waaw dama baax ndeysaan. ah moom borom baax la liggéey na fi bu baax nañu ñaanal ñëpp nag ñu ñu ñu liggéey. te te te liy rajaxe réew mi ñu bañ caa dugg. dëgg la la mooy xaalis mii xaalis dina defloo nit ñi lu ne de. waaw lu lu nga wax lu wér nga wax. Mm, buñ ko waxee rek sama xel mi yëpp nee na ci loolu. tabaarkàlla. yàlla yàlla def jàmm ñu ngi ñaanal bu baax ci maire bi. waaw yéen bi oyof euh, loolu mat naa wax Yacine Demba xam nga foofu ne gars yi li ñu xamut mooy alal julewul jërut wut ndax jikko yu ganuk dof lay yor <laughs> xam nga jikko yu ganuk dof <laughs> buy ñëw du tàggoo buy dem du tàggoo fi mu ne dof bu bees da ngay xëy rek gis ko gis ko fii ci dëkk bi bu subaa nga gis ko kebe meer. asalaamaaleykum moo tax alal julewu mat a wut asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. keneen na ngeen def waay. xanaa sant yàlla buur. waaleykum salaam. waaw déglu ma fii rek bul déglu rajo boobu day taxaw day tax nga sorente allo. waaw ah, sëñ bi noo ngi sant bu bër ah si si jàmm ñu ngi siyaare waay. tabaarkalla tabaarkalla. ñu ngi siyaare bu baax a baax ñu ngi si côté Proxal bu Jaara Bousso. ah ndeysaan la wallaay wallaay soriwuñ dara ab euh, cinq kilomètres rek. ah macha allah dëkk boo ne noonu. wallaay wallaay wallaay man maa ngi dëkk dëkk bu ñuy wax la Ndemeleen. leen kër Mba Jaxu. ah ndeysaan ndeysaan. wallaay ñu ngi siyaar bu baax a waaw màggal bi moom wax dëgg yàlla moom jigéen ji moom benn la si réew mi ko waa. ndeysaan ndeysaan. def borom baax la borom baax la màggalam de bu ku fa dem ku ne nga xam ne carrément jàmbaar la. ndeysaan. wallaay wallaay maa ngi bugg Xaadim Géey na nga tegal ma Xaadim Géey maa ngi si siyaare si aljam mboolem julli yëpp maa ngi di siyaare mhm, incha allah wallaay maa ngi di siyaare seen rajo bi ne allah moom i leer na fi trop ah, trop kontaan nañ si trop tabarkalla tabarkalla jërëjëf waaw kay loolu da lañ ci doon sàkku mooy mu leer ci nañ rek tabarkalla 88 628 14 14 ci la ñuy ànde di ziar waa Mbour nag di ziar sama yaay Adja Coro Sarr waaye nag di ziar bu baax a baax itam euh, sama yaay euh, Aya Ayda Xulle yaayu Mbay Njaay ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ziar cubb euh, famille famille cubb famille yi du la fàtte Mouhamed Njaay gëj naa ko dégg salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah waaw honorable yow moom gëj naa laa dégg kat. waaw wax nga dëgg de El Hadj Ndiaga ñu ngi lay nuyu. sibile bi ko mujjee. ah xanaa métti rek moom kay dee <laughs> dañoo def bay waaye sant yàlla rek. man dama ci am gune goog day sibile bu dugg corondal ga. <laughs> ma ne ah. <laughs> ñun de am na ay tànk la ay mu jàkk di tàccoo. Ah, ah, ah, moo tax jàmm njage lu mat ñaan la. waaw waaw dëgg la yal yàlla yokk jàmm ji yëpp ci jàmm ji la. amiin amiin yàlla soxna su baax léegi muy soxna jaara ba. ndeysaan. muy référence. Mhm. tubaab bi tudd boo amul repère am nga repère. Mm-hmm. soxna jaara jigéen ñëpp a war a roy ci moom ndeysaan ci dégg ndigal ji ak teel a teel a xam fan la yàlla féete muy jàmm yàlla ndeysaan loolu surtout surtout teel a jaamu yàlla ci jigéen mm-hmm. teel a ànd ak taqawallaahi ndeysaan teel a ànd ak ragal yàlla ndeysaan teel a ànd ak euh, di déglu ndigal te di ko jëfe ndeysaan kon jigéen ñëpp nañu roy ci soxna jaara repère am na mm-hmm. référence am na dëgg la de. repère mooy njëkk boo ñëwee ba RFM xamoo ba pour nga bëgg a wàññeeku da ngay xool étage yi tiim RFM. Hmm. nga ne ñaar ñett ba mu yàgg na RFM hmm. hmm. bu ma da ma fa ñëwee fekk naa fa ñetti étage. kon koñ boobu yomb naa xàmmee. loolu mooy repère jigéen ñi nag soxna jaaraangi noonu. su ah, ah. déglu seen jëkkër. nit boo ànd moom bëgg ko da xool la mu doon def ci lu baax. nga roy ko si moom. fexe bay déglu sa jëkkër te nga dangoo jàmm yàlla te nga sëb fas yéene di muñ dolli ci. Hmm. ndax jigéen ñi njàkk métti woon na trop mais dañoo muñ ba soxna jaar daa muñ ba am Seexul Xadim. dëgg la bu muñul woon man na fa bañ a toog comme yeneen jigéen ñi def damaa seet si rek bu ma xoolee ñaare fa ñett neexul ma dellu suñu kër. Hmm. te loolu taxul islam indi sëy. dëgg la kon jigéen ñi seen i góorgóorlu te muñ. Hmm. tey roy soxna jaara kooku daal laay yem di ñaan réew mi nag yàlla doole ñu jàmm. dalalal yàlla tasaar yàlla tasaar jàmm ci àdduna bi. dalalal kooku dalalal ah? kooku dalalal kooku bala gaa dem. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi na ngeen def. sama sëriñ noo ak fay woote. waaw man xam naa tudd dañ ma koy waaye maa ngi wootee Njaareem. <laughs> ah Njaareem. kon ma bàyyi la nga dugg bisimilah. <laughs> waa kay sëñ Mor jërëjëf waa sang bi. waaw waaw sëñ bi man de dama am rek ay labiré yu tuuti yu ma bëggoon a wax. mooy man daal dama bëggoon ci wàllu kilifa yi daal nga gën a wodd sa làmmiñ ndax soo na daal ni nga waxee léegi noonu. Hmm. daal daal xaw naa saayre lool ndax man ñii toog de ak yow ak keneen. Hmm. ku ñu waxoon sa jur wi war a dem ci néeg ñu waxee ko noonu. Hmm. da doo ko du la neex. te soo na nag. yaa ngi wax dëgg yàlla yëpp kàddu yi. kon maa maa ngi koy maa ngi yàlla yàlla boole ñu maa ngi koy jégalu bu baax xam nga màcc nu dimbi dina tax a dimba jërëjëf ah, damaa bëggoon nga bég rek moo tax ma waxee ko noonu. waaw ah, jërëjëf <laughs> yàlla na yàlla bëggal <laughs> ngi noonu saan gis nga ko de réew mi def nooy waxee rek am na ku ñuy déggee neneen te pourtant keneen laa jël exemple de dama ni jigéen jigéen ñi ni ñu daan def laa jël exemple waxuma sax soxna jaara moom daal la Maas Mbay maa ngi lay ziyaar ak euh, sa euh, soxna soosu soxna mbaalo noo koy ziyaar bu baax a baax di ko ñaanal yàlla 88 628 14 14. mu gàtt gàtt teewuloon lépp a nosaar. dellu buso. na jaara saa di néew na waaye fan wi gudd na. maa ngi ciy ziar aji ndey ba foofu ci aja ba foofu ci njaareem maa ngi koy ziar bu baax a baax euh, di ko ñaanal yàlla euh, yaay yaay yaay maam benn Diagne. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. El waa ku baax. El Hadj Ndiaga yaa mu gën téeméeri junni yoon. ah ndeysaan. ñu lay ñaanal gudd fan ak wér. ndeysaan macha allah. Sénégal gi yëpp ñu meloon ni yow. ah wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ndamoo de ci waa GRFM foofu yow si yéen yéen waa RFM waaw ñu ngi kontaan yéen lool lool lool xam nga lu lu ma gën a neex ci yow. waaw xam na nit woola di la wax lii def leen li nga ne jéggalu. <laughs> waaw loolu moo amatul Sénégal. <laughs> Ah, kay doy na du dëgg. wallahi azim yaa ngi roy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm, mhm. man day sa waay laa. sa mhm. benn soppe laa ku la bëgg laa wax dëgg yàlla. ndeysaan ñoo la gën a bëgg. surtout ma waa RFM yëpp nag. ndeysaan tabaarkalla. ak ñoom El Hadj Assane Gueye. waa El Hadj sama waa bu baax ñaanal baax. moom mi jëlee moom mi jëli eh, maanaam ndóol ci senegal ndeysaan. xam nga képp ku taxawar rajo nit ñi di liggéey gi wàññi nga ndóol. Mm-hmm. wàññi na ndóol de. waaw waaw leneen dinaa la ko ci dolli tàllal loxo bu weer deewee. dinaa la ko ci dollil daal leneen dinaa la ko ci dollil. waaw bari na ko jafar sax yor ay am employé di leen liggéey liggéeyloo te mus te duñu kontaan jërëjëf te yàlla yàlla suñu borom yonent bi nee na waaye fii kenn du fi toroxe <laughs> wallahi azim yàlla bu yàlla bu ñu torox ñun ñëpp macha allah réew mi daal ñu ngi naan yàlla na ñu bennoo ñu roy ci jigéen ñu baax ñi mhm. maam jaara buso ma ca poroxaan alhamdulilahi rabbil alamin lu lu bëri at mooy tax ngay am barke ndeysaan déedéet bëri at taxul nit am barke ndeysaan ndeysaan 33 ans wala fanweeri at ak ñetti waaw xam nga loolu bëriwut lay lay dëgg nañu roy ci suñu fa yi nañu mm. roy ci kilifa yi. am nañu royu waay am nañu royu waay am nañu royu kaay de. tabaarkalla. wallahi lazim alaaji njaga nag maa ngi lay bëgg bu baax maa ngi wooy boori frontière Mauritanie. wallaay ndeysaan nuyu nu waa waa frontière yëpp ñi da ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal jàmm ak salaam yëpp ak siñ seet sama siñ Mar Mor Mbàkke sama waa ji sama xarit. ndeysaan tabaarkalla ak sama jarbaat alaaji ah, kii Amadou Sabar Ba. walaay ndeysaan duy naa bu baax a baax a baax billaahi man li ma na ngi neex ci yow njëkk kii ci yow wallaahi la adim li ci des yëpp li ci yëpp ginnaaw la nekk tabaarkalla macha allah maam Ahmadou def ne boo jullee ci yà boo boo ñaanee ci yàlla nga julli ci yonante bi hmm. bëgg na ci yow hmm. bëgg na ci yow bëgg na ci yow ba keroog yow ma qiyaama di ngeen toog wax yaa ak moom ci yow ma qiyaama ci ajjana yëg wallaahi ñu ngi lay ñaanal sekk jërëjëf jërëjëf Ibrahima laa tudd Ibrahima Ba maa ngi ñaanal waa RFM yëpp jàmm ak salaam jërëjëf. waa kay jëf jërëjëf tabaarkalaaw di ziar bu baax waa luga nag ni ma ko waxee rek euh, yal na yàlla dolli leen i ndam euh, di ziar bu baax a baax a baax aji sàmb di ziar xaritu nag euh, sama xarit ba mu di ndeysaan sëñ Moustapha Diop maire ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ziar Fat baaba Guèye di ziar Maguette Fall aji màggat Fall waa Louga yooyu ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziar di leen ñaanal waaye xaadim maa ngi lay siyaar bu baax a baax alaaji xaadim <laughs> xaaral rek dinaa dellusi ci yow di ziar bu baax maam Bousso Gueye maam Bousso Gueye ca Italie maa ngi koy ziar defe naa ndax ñëw nga naa sax maam Bousso dafa war a ngaa màggal si de <laughs> maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax di la ñaanal yàlla. yéen a sama waaju baax jooju xaadim sàll euh, nekk Louga moom itam di koo xamee ni doon na xëccoo ci yëf yi léeg-léeg jaw Pa Omar Jaw ak Assane Gueye dégg nga day mbiram yooyu day baax ci moom boroom ginaar yi xaadim jaw maa ngi lay ziar maa ngi koy wax rek naan euh, xam nga Yacine li ma waaju wax dëgg la gis nga nit nit man na laa tomboo noppi sax nga jégglu ko du am problème day wàcc <laughs> xam nga maa ngi wax sunu am na benn koo xam ne moom du ma tudd turam waaye bu ma waxee rek di ko xam seen gaa bi seen gaawu police bi ne fii Cheikh Wade laay laay wax sax dama koy wax Cheikh Fall Baye Góor Wade mooy seen gaawu Sénégal yëpp moo jiite xaw ma nu ñu koy waxee man xaw ma seen kii yooyu euh, sunu équipe la nekkoon ca ngaay mexe sunu koñ la dëkk dalay gaañ kii la ci axe bi la nekkoon moom da koy gaañ ba noppi ñëw moo mooy ñëw ni la baal ma wax <laughs> sem gaañ yi ngay gis Cheikh Wade ñu tuddee ko Cheikh Fall Baye Diop la ko bàyyam tudde doomi góor gi Mor Wade noo ngi koy ziar bu baax a baax euh, sem ga yal na yàlla dolli la ndam yooyu kenn du ko fàtte booba moom ak Xaadim euh, Saña ñu daan ko wax Kalis Mbay Diouf Jaga Diop Isbu Tarxiya ndeysaan gaa yëpp léegi li <laughs> leneen lanu <laughs> booba gaa yooyu ñoo nekk ak Moustapha Diop bi yor bi yor équipe bi jàmbaar Tafa Tafa Tafa Seck Moustapha Seck entraîneur ba moo nekkoon seen kob jàppoo <laughs> waaye bal bu ko romb gaañu dong la mos a kon noo ngi ziar ñëpp tabarkalla sem gaa daal Cheikh Wade ñoo ngi koy ziar bu baax a baax Cheikh Fall bu Góor Wade yal na yàlla dolli la ndam te yàggal la. dala daan gaañ da nga ko daan gaañ ba mu ñëw ni la baal ma yaru lool sobal borom poroxaan ma jaar jur ku kenn jurul kenn am ti ko kenn la woon képp te yàlla jox la ko 88 628 14 14 mbokk mi salaamaaleykum allo asalaamaaleykum waaw kay di ci ziar nag njabootu Serigne Fallou Diop Gabon yooyu nga xam ni démb euh, sëñ Jili ña nga fa nekkoon euh, sëñ Xaadim sëñ Xaadim Diop mu sëñ Fallou Diop Gabon def ko na ko bàyyi ba daa defee. nee nañu nee na ma sëñ Jaga ma ne ko ah, ma ne kenn rek lenn rek a manqué ci ci ci yëf yi màggal gi ren ma ah, sëñ Fallou la gisul ma ne ko ceey man de looloo ma tax a daw xam naa bu ma fa ñëwoon dinaa def mbir. tabarakallahu ñu ziyaar ko ziyaara aji ndumbaan sekk euh, sama mag ju baax jooju di mag ci ab Ablaye Fafana mi waxtu wi daana fekk ñu xarafalal ko juróomi téeméeri dongo moom itam moog sëñ Fallou yëpp dem nañu yal na yàlla yeesal seen yërmande waaw 88 628 14 14 ci la ñuy ànde di ci ziar alaaji Ali Ndiaye Maritalia ma nga fa mu ne di ma déglu yal na yàlla dolli ndam ak a baax waa jooju alaaji Ali Ndiaye Maritalia mu baax ni moo la ko may yaa jagle ku kenn amul kenn am di ko alaaji sàmba Diaw duma la fàtte diwaanu murit maa ngi lay ziyaara alaaji Samba Diaw Masaalikul Jinaan yàlla def moo la ko may ziyaar fa nag eh, alaaji Lamine Faye Lamine Faye mu alaaji Mbacke sama xarit boobu sëriñ moo xam ne sama sëriñ moo taas la <laughs> xam nga man kooku laa gëm maa ngi ziyaara bu baax Lamine Faye aka baax te yaru te dara nag dafa yaru dafa dafa yaru moom defu ko ku sa xaju bay jur kuti bu la neex ngay tànn déedéet déedéet defayu ko noonu moo tax doomi kilifa yi yaru da leen a war comme lii ñuy lii ñu bàkkee Birane Ndour boo waxee ñun la aka yaru moo tax gis nga loolu baat boobu beneen affaire la asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Oustaz ngi laa ziar waay Gueye maa ngi la koy delloo bu baax di ñaanal ñëpp jàmm ak xéwal. alhamdulilah macha allah. di siyaar waa garas takk jàmmalaay. ndeysaan. waa moom buye laa koy bàyyee buye laay bàyyee mu siyaaral ma waa garas takk jàmmalaay gépp. ndeysaan. di siyaar waa Màkka Biraye Gueye nekk. waaw dëkk boobu. waaw siyaar naa ñëpp rek kullu ku sa numéro ku sa euh, dëkk Màkka rek maa ngi lay fekk fa nga nekk di la siyaar. ndeysaan. di ñi demoon Porokhane ñëpp. Mm-hmm. waajoon nañu waaye dañoo mujj rek xam nga rek euh, nit ñeeg client yeeg yooyu rek. ndeysaan. di ziar ñëpp rek di la ziar bu baax a baax a baax di la wax ne baat bi nag moom dafa normal ba tey ndax yooxu yi. <laughs> yaatu na de. <laughs> da nga da nga am ko dugg ca rollal ga dégg naa léegi nga di ko wax. <laughs> ma ne deewoon naa yuuxu waaye ndekete woo ba ma yuuxu te ñëpp a ñëpp a yuuxu seetaan nga président tëbam bi tëbu président eh, kay moom kay sëñ bi ah, xam naa daal xam naa daal seytaane daal bari na doole rek. yal na yàlla def jàmm yal na yàlla dolli ñu jàmm. Ah, anday sant tabaarkalla. yàlla dolli xéwal yi sutura yi. Mm-hmm. di siyaar waa Jëlirlu Sill waa Màkk Brage. ndeysaan allo waaw Lamine de xam naa ne dog na euh, di ziar Adja Khady Diop Sow sama xarit boobu Ismaïla Sow Ismaïla maa ngi lay ziar ndeysaan di leen gën a jàll seen imam bu baax boobu nga xam ni boo ko musaa dégg sëriñ sama xel dem ci sëriñ Cheikh waaw soo musaa dégg ndeysaan mu nelaw nelaw gu gaaw nag euh, imaamu parcelle unité 26 euh, bi saan nga xam ni eh, Ismaïla Sow boobu di borom këru Adja Khady Diop Sow Adja Khady Diop Sow damaa bëggoon mu doon meeru parcelle ñan naa ko fu ne ñaan naa ko lu ne ñaan naa ko waaw kooku ko ko doonoon waa parcelle am jàmm ñoom xam nañ li may wax yàlla na yàlla dolli ko ndam eh, di ko ziar di ziar sama baay alaaji Aline Badara Bey bàyyi tonton mag tonton mag nee na ma dee ma tudd ma ni ko yow ma ni ko yow du ma tudd yow yow ma <laughs> nuroo ak baay bi mu ne waaye xaw gañe naa ndax man saaboo saa man man ne bay jaayanteeg baay bi nee na ma man ngay référé wu Euh, Aline ba dafay bàyyi tonton mag ma <laughs> ko ma ne ko góor gi góor gee la sagal foofu mu ne ma non non ba bu yaa ma ci tudd di kon nag noo ngi koy ziar di ziar apulaay euh, yal na yàlla dolli ko ndam euh, Mawa Cissé sama xarit maa ngi lay ziar asalaamaaleykum. aleykum salaam wa waa ku baax. ah sëriñ bi ñu ngi ziare bu baax. yal na yàlla dolli ndam. alhamdulilah. baarakallah macha allah. baarakallah. ah waa xanaa day. dañoo kontaan ci yow rek. alhamdulilah. ndax boroom xam-xam. Mhm. ni nga doxee rek lay doxalee. ndeysaan. ndax àdduna moom ñëpp mënuñoo maase ci bëgg li ngay def. ndeysaan. ah ndax bu téeméer bëggee. Mhm. faw mu am kenn ku bañ. dëgg la dëgg la. waaye kenn ki bañ boo fexee ba nangul ko rek xamal ne boroom xam-xam nga. alhamdulilah. ah ndax ab jullit rek mooy doxalee noonu. ndeysaan. ndax kuré yi du mu du du du jéggale mu kuré yi. Hmm, dëgg la de. bu tooñee buñ ko tooñee du jéggalu. dëgg la dëgg la. waaye nag euh, ndax bëri na ñu ñu ñu ñu yàqule ci ci boromi xam-xam yi. Hmm. ñàkk wàcce seen bopp rek leen jàqal. Hmm, te lii nag day wone ni maanaam sunu borom am na lum la may. alhamdulilah. waaw léegi nag gën koo sàmm te góorgóorlu rek. incha allah ñu ngi ñu ngi ñaanal suñu borom gën la teg loxo. amiin yaa rabbal alamin waa ah, ndax jéggalu moom. kuréy du ko def kuréy du ko def. dëgg la de dëgg la de. waaw jéggale it kuréy du ko def. macha allah macha allah. waaw kon nag ñu ngi lay ñaanal bu baax suñu borom gën la yokk. def gën la jox xolu mën a jéggale. gën a yokk xam-xam bi. alhamdulilah macha allah. yokk kàttan gi ak man gi. jërëjëf jërëjëf sag bi. te musal la ci pexeb seytaane ak noonu. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. waaw kay tabarkalla loolu sax de amul solo ndeysaan moom xam naa ni daa déggul li ma doon wax rek man. dama doon joxe exemple tudduma sax soxna jaara dama doon wax jigéen ñu jëkk ña waaw moom daa defee ni soxna jaara laay laay wax woo ma ko de dama ni jigéen ñu jëkk ña yaasin mii laa doon wax naa ko jigéen ñu jëkk ña buñ musaa ni jëlib dawal ak yooyu yooyu laa doon wax man booba waxuma sax soxna jaara boobu génn naa soxna jaara xam naa nag daa fekk ma nit ñi xam nga bu ñuy déglu duñ déglu lépp tuuti lañ ciy déglu rek fi ne nii bindkat yi itam eh, ñoom du leen bàyyi <laughs> bindkat yi tiitir yi da ngay wax lu baree bari ñu déglu ca tuuti dagg ko tegal la ko fa bu ko defee affaire ba garaaw loolu rek la teyit teyit xam-xam pour nit ñi jariñu ci il faut nga waxe ko sax na mu demee pour que nit ñi man yaasin mën a xam ni lii mooy liggéey bi nii la war a def pour jaamu pour pour pour mën am jariñu sono jaare ni mu def ba jariñu loolu dañ ko war a leeral ah, xanaa dañoo bëggul nit ñi am nit ñi jariñu kon loolu kat dañoo war a wax ni nii la daa def nii la daa def nii la daa def nii la daa def wax ko noonu leer ba nit mu dugg seen bopp nag ñu mën a def noonu ba ku fi ñëwati mën a jaar foofu pour jariñu loolu kat mooy dëgg nag ah Sénégal sujet tabou moo ko yàq nag Sénégal doo wax ci kenn ku ne doo wax ci moom luy jariñ nit ñi doo ko wax loolu moo garaaw moo taxit jéggulu rek ku dégg loo xam ne waroo koo dégg ma bokk tabarkàlla 88 628 14 14 ci la ñuy ànd euh, Seexuna Mbaj na jara sa coono jëf yi moo waral xewal yi tey wàññi ron na raw nga kuy takk tubay na jaara sigginte wey di ci ziyaar groupe sallallahu ala muhammadin bu ma leen fàtte mukk Adja Penda ba maa ngi koy wax yaa Fatika di ziyaara Adja Marème jiite ca ngaay Adja Fat Diop jëli du ma la fàtte Marème Sène Abdoul Karim Marème Sène Amin Tataal sama bàjjan Adja Fat Bintu Seck ñooñu ñooy groupe sallallahu ala Muhammad ba mu tàmbalee ba léegi noo ngi ci 200 yi nangam personne day fii leen bokkawan ci ci bi waaye groupe bi boobu ba léegi xam nga lu ñu fay nekkee di jàng alquran di tari depuis ko sosee ba léegi jàngal alxuraan ak tari yëpp tari nañu ba amul salaamaaleykum amul maaleykum salaam amul amul yónnee vidéo amul yónnee photo boo ko defee ñu amande la waaw ca ngaay moo ko jiite yàlla yàlla dolli ko ndam asalaamaaleykum maaleykum salaam ku maa ngi lay ziar waay dellu maa ngi lay ziar Diouf maa ngi lay woowee Thiaroye waaw ñu ngi rafet liggéey bu baax a baax. alhamdulilah. macha allah rafet na trop am na solo. macha allah. man nag damay soppi rajo boobu soppi RFM bëgg leen lool. ndeysaan. chaque jour moom maa leen teewlu rek. la tabarkalla. waaye waaye liggéey bi rafet na noonu la doxalal rek. alhamdulilah. waaw cat dañ gërëm rek day rek. ngaa jàmm rek incha allah. alhamdulilah non xoolal nag ma kumba béy moom. di ziareel ma ko bu baax kooku sama soppe la. dama ma ngi lay dégg moom moom du ko raw. ma ngi lay dégg de. kooku yàlla xam na ni dama ko bëgg lool sax billaay. ndeysaan ndeysaan. RFM ñëpp laa bëgg billaay moom dajay raw. mu ko ma daa neex a bëgg. wallaahi ma soñal moom dana am numéro am sax. incha allah boo wootee ci 33 849 16 40 ñu jox la numéro am. waaw baax incha allah. tabarkala eh, mbokk moomu yàlla na yàlla dolli ndam ci yow ko bëgg yàlla boole leen bëgg. 88 628 14 14 ci la ñuy ànd ak yeen maa ngi ziyaara bu baax a baax itam waa Thiès euh, Moustapha Seck jànkatu xasida du duma ko fàtte euh, ak baayam bàcc sekk ak baara sama mag yooyu di ñaanal njaxat bu baax a baax ak njaboot ga euh, sama waa kër bàjjan Mbaye maa ngi leen di siyaar bu baax ñoom Paate Ndiaye ñaanal góore ma dem ak mbooleem njaboot ga yàlla na yàlla dolli ndam waa Cees yëpp du ma leen fàtte ndax ñooñu góoroo soxna Mbaye ak ngóoroo soxna Mbaye bokk ndey ak baay <laughs> góoroo soxna Mbaye jur bàcc ngóoroo soxna Mbaye ma jur ziar sama waa kër bàyyi nag alaaji Njaga Ñang ca Cees ak waa kër ab Ablaay Ñang waa kër Majaañ Ñang raan ma ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax ndax Njaga Ñang moomee la ñu ma duppe quatre vingt huit six cent salaamaaleykum allo allo woo dog na tabarkal sama yaay ajaaye de xulle càmmiñal alaaji moodu xulle maa ngi lay ziar bu baax a baax alaaji moodu xulle mu baax mi ak alaaji basiiru saw du la fàtte asalaamaaleykum waaleykum ku baax maa ngi lay baax ku baax ki kan la alaaj baabu Seck Ngaay <laughs> waaw maa ngi lay ziar bu baax di la sant di la gërëm waaw taxawaay bi waaye dégg-dégg rek moo am solo. si Demba kii ci moom laa topp kii wax nii nit ñi nan wax ne ko ci kii laa topp waaw. <laughs> booy la ak booy disco la <laughs> boo ma gisee nag naa maa a jur <laughs> waaw waaw sekk waaw. waaw doo leen sant bu baax di rafetlu waxtaan yu baax a baax. waaw. vraiment daal jaar na yoon. alhamdulilah. ndax bu mënal nga ne itam suuf laa lay jël ne leen li nga wax lii ak lii ak laa. taarkalla. waaye nag jaar na yoon baax a baax wax dëgg yàlla. alhamdulilah alhamdulilah. di leen ñaanal jàpp wax ñu waxal na suñu métier mi. alaaji sëñ kay maa ko la aw. aw aw daal moom nan na ci waxal. <laughs> jël leen ndax aw fan ko yóbbu ñun sonn nañu. jël leen jël leen. non <laughs> non ñaan ci maam jaara bu sa mii. Ah. nga xam mooy borom màggal gi. waaw waaw daal yàlla ba aw daal. même boo demee ba di ko bàyyi sax. Hmm. aw moom. nit parce que nit mën na cee am lu ne. waaw ngaay googu de ma wax yàlla lu ne mën na faa bàyyi ko nag. lu ne mën xam naa mooy mooy doon mooy doon mooy doon mooy doon idée idée euh, monsieur le maire Maguette Wade. ndax dégg naa mu wax ko dégg naa mu wax ko na waaw na ci gën a góorgóorlu ndax it. Hmm. ñun comme moo la fi nekkal. Hmm. nañ ci gën a mën a jàppale parce que man fam kàddu àddu ñun àggulu fa. kon baax na Oustaz Ndiaga ñoo ngi leen sant di waaw kay tabaarkalla Malick Thiandoum waa ngaaya ngi lay laaj maa ngi lay siyaar baax xam nga malik Thiandoum itam maa ngi moom ci ay jamono ba may ne ci yooyee moo daan yor micro bi di wax ci tubaab di wax ci tubaab may wax ci wolof bi <laughs> booba dañ daan reporté match match <laughs> ressortissants yi mësan nañ faa ñëw bukaande bukaande meen bukaande borom rastaye ak ñoom Omar Gueye seen fala Malick Thiandoum fële terrain central terrain asalem ndeysaan Malick taxaw di di wax biographie am oh daa bàyyi mat ba ñëw taxaw jàkkaarloog moom mel ni daa da ko juddulu <laughs> ah ndeysaan loo tax daal tabarkàlla booba maag Moussa gisee góor a ngaay ñoom ndeysaan ngaay a ngi noonu kii nag kii doon wax léegi maag mooma a ndey ak baay waaw maa maa ci moom rëkk 88 628 4 ah kontaan de loolu la di boo waxee say bokk génn wax loolu da ngay kontaan 88 628 14 14 ci la ñuy àndee. gi tuutiwul. nga may nañu waaw kay euh, jërëjëf euh, ziar nanu mataar yi ziar naa la ziar sa yaay ju baax ja ne ko maa ngi koy ziar bu baax a baax sëñ mataar ak mbooleem ñii déglu xam naa waxtu wala li ma dese bëriwul euh, tabaarakallaahu di ziara waa Mbàkke Bawol du ma leen fàtte Adja Sooda Jeng maa ngi koy ziar bu baax a baax sama xarit bu Màkka ba. maa ngi moom noo àndoon ca baytul laahil haraam ko doon tawaafal asalaamaaleykum aleykum salaam alay njaga waa ko baax ah, ma la askuma maa fi génnoon léegi kunun waaw xam-xam bi moom rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax ñëpp wax rek mooy dëgg yàlla yàlla dafa jàpp jërëjëf jërëjëf yow da ngaa baax dañ ñii di nangu rek yonente bi sax loolu la woon jërëjëf waaw ay six heures du matin waaw ndeysaan ah xam nañ bu baax foo war loo war a wax ak loo war a wax yàlla yàlla dafa jàpp jazakallah yàlla yàlla dafa jàpp jërëjëf waay jërëjëf kon de xam naa waxtu mat na kiy woote moom dana ko parce que bëgguma koo jël muy dagg ma ngi noonu di ziyaara ñëpp ziyaara waa Thiès ziyaara waa Mbàkke Bawol ni ma ko waxee euh, ziyaara bu baax a baax Adja Soode Jeng yàlla na yàlla wéral cëram nit ku baax a ngi noonu nag Adja Soode Jeng mi woote rajo bi fii maa ngi moom maa ko doon tawaafal màkka léeg-léeg mu ne ma njaga sama jabet ji dee ko sóoraale yow tam <laughs> ma ne ko yow jàmm rek lay dal nañ dem boo naanee ci sam-sam bi mu daj mun ma ah xam ma daj tey de ma ne ko demat rek yàlla baax na di ziyaare soxna Awa Kane Eva Voyage mi mi àndal di ko ñaanal yàlla ak soxna Aïssa Kane euh, Fanta Soumanu euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaara ba bu baax a baax monsieur Souran moom itam noo ngi koy ziyaar bu baax te di ko ñaanal yàlla euh, di ñaanal monsieur le maire nag madame Ndiaye madame Ndiaye Oumou njaay ma nekk TFM borom këram mooy meeru mooy meeru Nioro moo ko gañewaat sunu maire ndax soxnaama nga ca tele bee toog am fa njariñ lool baax lool borom këram nag bu gañee danu koy sargal ba ñëpp dégg ko yàlla na yàlla dolli ko ndam mu seba ko baax la waaw ndax nan naa ko fi euh, Oumy Ndiaye moom ku ko jël di nga nu jëlaale ñëpp <laughs> waa Futurs Médias <laughs> kon nag yàlla yàlla dolli ndam di ñaanal ci réew mi jàmm lii fi xew nii muy euh, mondial bi kaani euh, kaanee ngi ciy bëgg am na kaani kaanee ngi ciy bëgg safan na sukkur waaye ma ngi bëgg kaani wu te ñii xuloo man damaa jaaxal xoolal te ñaar yi ci xew mooy càcc gi ñi ñi ñu xamante ca Colobane ñu daa eh, naan Colobane ak feneen ak feneen fa la sàcc yee nekk ak booy ci biti ñooy sàcc càcc gi ñu doon wax ci téléphone yi càcc sàcc yi yéeg jotiwuñu jotiwuñu fa ñu sàccee <laughs> yaa ngi yaa ngi dégg fa ñu sàcc yi jotiwuñu fa <laughs> beneen bi ci des mooy ñii xuloo xaalis ña ña ne ca kawa nañu seetaat seen i mbir xaalis dina mës a toj réew mi de moom foofu laay tàggoo incha allah Georges ngi noonu Euh, man na xaw ma lu tax demul poroxaan ndax moom daa deman yeesalaat ci sëñ taxa waaye boobu bële xaw ma xaw ma fu mu mujj <laughs> sor sama leen gars yi dañ naan naan yow est-ce que fi daan <laughs> waa ji daan wër ci jàkka yi di <laughs> fu mu dem ni leen damay tuub waaye yow moom sa digganteeg Seex Sidi Maxtaar maa ko seede Georges euh, maa ngi lay ziar def naa poroxaan ji ren moom asalaamaaleykum waaw maa ngi lay ziar maa ngi delloo ziar def naa poroxaan ji ren li euh, am na solo de waaw am na solo lu tax demoo yow tam sans waa ji am ah yow yow da nga may nëbbutu. man yaram wee doon nekk nekk. ah yow daal da nga may nëbbutu. de non ren demu ma man xamatuma ci li nga nekk. <laughs> waaw ba ma jóg na waxtaan ci. waaw léegi ñu léegi ñu waaj ko rek dem ziyaare ji après. jéem a incha allah. fawti mamma ne balli ila shafi